encore une fois tu emploies. non non non non no no ak bu ma mën a utiliser. Pape dafa mel ni euh, nag dafa mel ni que président ni que dafa mel ni que. Mhm. Euh, sa xel dafa nekk ni gars yi dañuy diile. bu fekkee ne loolu la mën nga ko wax yow mën nga jël responsabilité wax ko mais man tudduguma loolu mën nga jël nag responsabilité wax ko yow mais man bu ma ko sës. li ngeen leen jiiñ ñu mu tudd. ah li ngeen leen jiiñ ñu mu. dama ñenn ci opposition bi li ngeen leen jiiñ ñu mu tudd. xam nga ñun Pape génn nañu taxaw di seet un point intérêt ñu ngi xool ubbi seen bët xool. waaw ah, mais foofu ngeen waroon yëpp. non bàyyi ñu fi ñu yem rek fi ñu war a yem nañ ci pour le moment du ñu passé foofu ba ñuy jëli ci leneen. Mhm. d'accord euh, dañu nekk nag ci ci ci ci jamono boo xam ni yaa ngi dégg lu jëm ci mandat président de la république moo di coow mu am lu mu ci wax. Euh, ba dem ci ni jaratul ma ciy wax ndax su ma ci waxee lii am su ma ci waxee lële am ndax yey na la kàddoom yooyu ci ni xalaatul la briguer beneen troisième mandat pour yow. xam nga pap Macky kilifa la. Mm-hmm. mooy président de la république. Mm-hmm. bu ñu demee ba mu ragal tontu. Mm-hmm. parce que bu tontoo ñaari kan nooy nekk ci ñoom. te buggul ñii mer buggul ñii mer boobu waa kilifteem moom des na. autorité am ñàkk na ko loolu laa ci mën tontu bu ma nee waaw damay bokk élection mu ne réew mi tàkk bu ma nee déet sama parti tas mooy ngonte boom moom boppam rek candidature am ak partem d'accord waaw ok loolu la foofu laa ci mën a yem loolu moo non loolu mooy li ci jàngat peut-être ci kàddu yi mu wax waaw mais ni nga gisee est-ce que yaakaar nga ak juridiquement ndax yàlla na aussi mu mën a briguer un troisième mandat. xam nga soxlawul juridique wala juridique wala bañ juridique mu ngi dépendre ci moom 2017 bu buggoon moom bu bëggoon bu bëggoon day présenté waat élection président day day def élection présidentielle yomboon na trop constitution bi day bind bind ko jox ko du laaj avis bind ne lii laa bëgg jox ko peuple bi peuple bi moo ëpp droit. moo ëpp gën a kawe conseil constitutionnel. donc loolu donc lu dañ la. sept yi dañ na comme man lu mu ma waxoon mu dañ moo tax changé naa ci moom balaa ma koy gëm daal gis ko. d'accord mais su wéeroo ci jurisprudence su Abdoulaye Wade nag. ci troisième mandat. jurisprudence su Abdoulaye Wade. Mhm. mooy lan mooy euh, demander conseil constitutionnel ndax am na droit def troisième mandat ndi ko Abdoulaye Wade defee woon. ndax nu ko Abdoulaye defee woon. waaw waaw mais ko conseil constitutionnel joxee nga xam ne conseil constitutionnel jox na ngoonte mu def ko ngoonte na ko def. Mhm. léegi nga daf <laughs> boo posé question fa damay bàyyi ma tontu rek dama ko laaj ma mhm. heureusement def nga ko sama xel. Mhm. président Macky maa ngi lay demandé Pape Ngagne jox na ma benn xel da bind conseil constitutionnel nga ne leen da def troisième mandat lan mooy sa avis rendu nga ko d'ailleurs un bon service. Mmh. mais bu boobaa. banta taxawaay nga ci am. ma xaar conseil constitutionnel. bu ci àndee ak moom. ma ma ma déggoo ma ne moom lay xaar. bu ne julli jot na ma ne julli na bu ne amul ma ne amul jeex na. Mhm. Euh, loolu da ci xaw a maandu de xaw ma lu tax. non maanduwuma dama la wax li am. Mhm. comme man xaw ma fu mu jëm. xaw ma lu muy def. ragal na ko wax ragal na ñi ragal na ñi damay xaar ba mu décider. Mhm. <laughs> d'accord euh, président bëgg naa ñu gën a dellu siwaat un peu ci seen parti ndax daf ci am ay nit yoo xam ni jàmbu nañu ba taxawal ànd suqali euh, soppi euh, ñu nekkoon nag ay cadre émérite yoo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi ràññee nañu seen xar kanam ci PDS ak seen taxawaay euh, ñu mën ci lim ku mel ni Babacar Gaye mën ci lim ku mel ni Maître Amadou Sall mën ci lim ku mel ni euh, Omar Sarr mën ci lim ñu bëri bari bëri ñooñu nga xam ne ay kàngam lañu départ bu mel na euh, comportement bu mel noonu ndax nekk na avantage pour Parti démocratique Sénégal. xam nga amul benn départ ci organisation wax nañ ko sànq. Mm-hmm. Euh, boo xam ne bii bu génnee ci organisation bi organisation bi du am lu mu yëkk mais du tere mu dundaat dagg banqaas ci garab taxul garab gi dee yenn saa yi sax dinañ ko def élagé pour mu gën a sëq mhm. surtout bu nawet di ñëw mhm. donc loolu seen responsabilité ñoom def nañ ko ñu ngi seen responsabilité ay la yoween ça fait longtemps que waxuma si loolu parce que gisuma njariñam mhm. ah man man man man loolu ni ko soofantalee président jaaxal na ma da ko xaw a soofantal. non mais mais si mais parce que dama ko yëgul xam nga ku nekk ak li nga tal ak li nga jublu boo amee loo xam ne da ci jublu nekk ci du la tardé ci loo jubluwul jublu ci li ñu jublu am nañ ci droit da leen di jox seen droit ci loolu. Mhm. xamuñu nekkoon nañu mu am ñu jubluwoon ci noonu. ñun ñëpp am na lu ñu doon wax ci ñi ko defoon. d'accord waaw def nañu loolu seen siir la. d'accord ah, jeex mais ñoom seen ëllëg aussi dara daf ci leerul ci wàllu politique déggoon nañ fi benn euh, benn euh, benn benn communiqué bu PDS defoon rek euh, daal di xool ni Oumar Sarr ay actam ñoom jël nañ acte ak yooyu ci loolu mais waxuñu ci dara lu leer c'est-à-dire yéen pare woo leen pour dàq leen ñoom pare wuñ pour démissionner lan moo ci. lan xam nga xam nga ne da ne ñoom seen dara leerul ko. comme seen bu da nga ne seen dara leerul ci mbir politique ñoom ngay woo ñu leer la man sunu bos leer na ci borom pro politique ñun li ñu war a def leer na suñu bopp ñoom nag yow da nga ne ñoom seen bopp seen bopp leerul ci mbiru politique Pape da nga leen di waraaj leen koy tamit surtout yow koo woo muuyu la. Mm-hmm. d'accord euh, président euh, tey dañu bërki démb dañu xëy daanaka ñetti rapport cour des comptes wàccandoo rapport yi gis nga jafe-jafe yi nga xam ni jur na ko indi na ko. ci yorinu réew mi ci li nga xam ne noonu lañ koy doxalee. Euh, rapport yi bi nga ko gisee ak tontu bi nga xam ne président wax na ko ci. ni dinañ xool commission boo xam ni dina taxaw ci taxawaay boobu euh, xool itam yan matuwaay lañu war a mën a jël ci rapport yi euh, nga xam ni épinglé na ñu bëri ci ay ñi nga xam ne ay kilifa lañu ci régime ban gis-gis nga am ci rapport yi ak génn boobu nga xam ni génn na ko ci. man amoo problème ci rapport yi awma ci problème rapport yi ak lu ñu mën wax ak lu mu garaaw garaaw garaaw aw ma ci problème aw ma ci njaaxle rien ne me surprend. waaw président nag tey da nga ñëw nanga woo wax. waaw man loolu daf ma jaaxal. question yëpp da nga ko da nga ko fermé. Euh, bi dama la ko wax parce que problème bi problème bi nekkul ci rapport yi. bind rapport yi moo gën a yomb xam nga lan moo lan moo ci des ñi wala appliquer rapport yi ñoo ñooy problème bi. mooy mooy justice. waaw mooy mooy la cour des comptes. ok mooy le président de la république. moom mi ñu jox rapport yi. waaw ñoom ñoo am problème. ñoo ñooy ban problème ñoo ñooñu hmm. ñooñu ñooy suñu problème. ñooñu ñooy suñu problème. nit def na lu mu war a def jàpp nga ko yóbbu police. dañ la fekk nga yor oto yéeg ci kaw circulation bi ñu jàpp la. Hmm. wala da nga def ci école bi loo war a def ñu yóbbu la ci sa kilifa. dépend yow yow ki la jàpp ji pare na ci xam nga ki ñu des kilifa gi ñu la jox. xam nga lu Cour des comptes wax ci tardé bi lu mu waroon génne at bu nekk. mu ne mën naa tardé c'est-à-dire que fu Cour des comptes mën naa am tardé bu 2014 mën na ko def 2024 Pape est-ce que est-ce que c'est sérieux ci kooku la ñu war a jaaxle jox la ay moyens yokkal la xaalis jox la xaalis jox la liggéeyukaay di la fay weer utal la bureau climatisé ko di la tabaxal immeuble bu rëy boo war a nekk. ñu ne la mu ngi nii ñu ne tey lañ la ko nga génn. nga ne mën nga tardé ñetti at ñeenti at garaawul d'ailleurs yi ci des feeg ñeenti feeg ñeenti at ñetti at di ko génne mais c'est extrêmement grave Pape foofu la problème bi nekk problème bi nekkul ci rapport yi loolu lu ko indi maintenant pourquoi cour des comptes am loolu. Mhm. cour des comptes comme euh, la cour des comptes bi ñu ñëwee dañ ko fi fekk fi lañ ko fekk ñun inspection générale dañ ko fi fekk mais lépp loo fi gis ci problème mu transparence ci diggante bi ñoo ko fi teg. ba mu des of nag. waaw déglu ma rek bàyyil ma ñëw. waaw waaw mais dama lay fàttali rek. waaw non maa ngi ñëw Pape. bu euh, nag moom. Pape ne sois pas pressé. Mm-hmm. sinon tu vas danser mal. Mm-hmm, d'accord alors donc léegi ñu indi fële ñu fekk commission nationale de la lutte contre la corruption et la concussion pour ma ñëw ci of nag après. ART euh, agence de régulation des marché publics la direction des marchés publics la CENTIF yooyu fële ko fekk. Mm-hmm. muy ay instruments yu bees yu lutter contre la transparence ñu jël suñu constitution wax ci ne ko transparence ak bon gouvernance dafa bokk si suñu constitution en 2001 donc instrument yu ñu yor pour liggéeyee ko rek lañ ko fekk def ci déclaration de patrimoine du président de la république jël ay moyens jox ko cour des comptes changer loi sur la vérification de l' inspection générale d' jox leen ay moyens yokk seen salaire waaw ñoom nag ñu ne ko liggéey bi dañ la ko jox bu paree boo ci liggéeyee douze war nga génne rapport ñu toog ñeenti at juróomi at génnewuñ ko te li tax ñu génne ko dañ leen yuuxu ba pare nañu nag yu yi si ñëw aussi day tardé waaw kañ kan ngay rectifier kañ mooy on a des problèmes avec la cour des comptes cour des comptes magistrat cour yi am nañu problème ak seen réew am nañu seen problème ak état bi est-ce que bëgg nañu bonne gouvernance ak lu tax ñu def ko mooy première question commission nationale de lutte contre la corruption moo remplacé OFNAC Pape OFNAC xam nga ma wax la ci lu leer waxaat ko léegi ñëpp di ko dégg du lu Macky Sall indi Macky Sall indiwu ko inventé wu ko Abdou Diouf moo ko bind en 98 98. tuddee woon ko nan. OFNAC wallaay c'est-à-dire que sénégalais yi. ah non euh, wax loolu waaye itam président Doudou Wade. mais euh, non Macky Sall wax ni ñoo ko fi indi pour ñun ñi gouverner tey jii la. ma euh, duñ ci protégé kenn. waaw waaw déglu rek Pape je rek rajo laay waxee rajo laay waxee. bu fekkee ne am na kenn ku ko mel di ku nekk dans la magistrature te nekkoon sous le régime bi Abdou Diouf nga ñëw weddi ko bu fekkee ne forum civil bi ko bi leen ko jox ndëgëm ñoom ñoo ko moom ndëgëm jëlewuñ ko foofu wala déet. ak Mouhamed Mbodj te am na kenn koo xam ne ki mu ngi dund magistrat émérite la muy duut ndiir moo jiite atelier ba Pape li may wax dama ko teg fenn donc man joxoon nañ ma ko ma ne man dañuy remplacer Abdou Diouf pour mu jóge fi ñu woo ma pour ma liggéey damay seet lu may def moo tax ñu créé la commission nationale de lutte contre la corruption am fu mu yem ak ñoom nag ñoom ñu ne dañ ko yokk am na lu ci manqué woon bi ñu ko defee pendant deux trois ans quatre ans gisoon nañ ko. Mhm. ñu war ko yokkaat comme ni ñuy changé changé nañ loi organique bi bërkaat démb. noonu la àddina di doxee mais du lu bees bu ñu ko approprier seen bopp dafa nànk rek. Mhm. parce que mensonge d'état bi dañu war a bàyyi. nga sol lu rafet bële bi ma ne dinaa ko uti wala nga am lu baax ma ne dinaa ko uti loolu stimulation la ci nit mais damay nangu ne ci Pape Alé ci Pape ngañ laa ko gisee parce que léegi génn nga fi benn idée bu baax bu bien jàpp naa ne war nañ ko seet parce que Macky Sall il faut ñu wax ko ne ko bu bëggee troisième mandat mën na ko na demander avis conseil constitutionnel idée bu baax la idée bu baax dañ koy jël joxe ko. donc loolu xam naa dina ko intéressé donc loolu yëpp instrument yi ñoo ko teg cour des comptes lu tax mu def ko mais déclaration de patrimoine yi moom waaw mi ci la nga yaakaar ni ñoom loolu ci seen ci ci euh, ci seen magistère la waaw xam lu tax